ñoo leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci àllarba bi di leen bëggee yéen ñëpp di kontaan ci taxawaay bi di kontaan aussi ci nekk bi ñu nekk en famille di waxtaan tout le temps ci devenir u ak li nga xam ne mooy aveniru u Sénégal devenir u ak avenir senegal ñun ñëpp la concerné kenn ku ci nekk am nga ci kàddu kenn ko ci nekk am nga ci gis-gis gis-gis boobu nag moo waraloon ñu dem élection ak gëm-gëm bi yàlla def conseil constitutionnel déclaré na démb ne Macky Sall gagné na à 58 pour cent loolu su amee te ñëpp def constat bi senegal yëpp def constat bi gis li xew. opposition bi def seen benn manifeste bind seen kayit ne reconnaître ñu yi résultat conseil constitutionnel ñëw déclaré ne kii gañe na te comme réew mi dafa am aw yoon wu muy doxe yoon woowa mën na leen a nangul ñoom ñu doxal seen doxal waaye nag loolu empêché wul dara opposition bi opposé empêché wul dara képp ku nekkoon opposant nga nekk opposant kon nag maa ngi leen di yëgal ne conseil constitutionnel nee na gañe nañ 58 pour cent deux pour cent yi ci Sénégal nee nañu nee nañu d'accorduñu ci nguuru googu nga xam ne moom lañ fi teg la majorité l'a emporté kon moom am na droit doxal comme moom am na droit doxal nag ñun tamit am nañ droit opposé wu. maa ngi leen di xamal ne bis ni ki tey amul répit nous sommes dans l'opposition lépp loo xam ne gis nañ ko lu jar a critiquer ci réew mii danañ ko critiquer lépp loo xam ne gis nañ ko ci réew mi lu jara a danañ ko dénoncer lépp luñ gisit ne lii intérêt Sénégal la danañ tàccu loolu tamit na leer opposé wu ñu pour opposer lépp loo xam ne gis nañ ne lii intérêt Sénégal la nga ca dinañ tàccu waaye lépp loo xam ne gis nañ ko ni intérêt Sénégal nekku ci wala yoon wii di yoonu yoon wi nga xam ne mooy aveniru u Sénégal danañ taxaw jàkkaarloog ñoom opposé wu parce que nous sommes des opposants nag loolu laa bëggoon mu leer ci boppu ñëpp di wax ne ginnaaw bi nga xamante ne bi euh, Macky Sall woote na dialogue dialogue boobu mu woote man ànduma ci déw ma dialogué ma damay wax déjà présent ne dialogué wu ma dialogué wu ma dialogué ma Idrissa Seck dialogué loowu ma benn opposant ndaxte li tax ma wax loolu lenn rek la par cohérence su fekkee yow bind nga ci këyit ne rejeté nga résultat yi naka ngay deme di dialogueeti ak koo xamante ne bii déjà moom moo la teg lim la teg kon loolu amul cohérence moo tax dialogue mënta am foofu mu leer parce que dégg naa Abdou Mbaye moom li wax leer na am nga 58 pour cent soxlawul ngay jalooge am nga 58 pour cent gouverneel soxlawul ngay dialogué man nag li ma mën a wax mooy lenn te fii laa koy waxe coalition Idy 2019 bi ma àndaloon bés bu ñu demee di dialogue ji ak Macky Sall man bàyyi naa leen bis ni ki man Assane Sylla laa wax coalition bi nga xamante ne bii laa wax dem na àndoon na ak ñun di liggéey coalition boobu bu demee di dialogue ji bis man bàyyi naa leen ndax man opposant laa ànduma ak nguur gi ànduma ak it liñ décidé mënuloo nag ne yow da ngaa bëgg a dialogue jël ay char de combat teg ci ci ci ci dëkk bi jël ay soldats rek i gendarme sotti leen ci dëkk bi yépp di jàpp ay opposants di intimider ay opposants ba noppi ne da ngaa bëgg a dialogue loolu mënta nekk dialogue amul foofu man boog personnellement je vous dis que je ne suis pas d'accord dialogue ma ànduma ci dialogue sama rôle opposant daal dinaa ko doxal mooy lépp lu ma gis lu jar a décrier dinaa ko décrier lépp lu ma gis lu jar a tàccu tamit danaa ko tàccu waajal nag ñu jëm ci élection locale yi di ñëw nga xamante ne bi li mu laaj bari na li ñuy xaar ñun ci nguur gi mooy un audit indépendant bu fichier électoral bi loolu la ñuy xaar li ñuy xaar ci nguur gi mooy ñu organiser élection locale yoo xamante ne bii libre et transparente la faute yi nga xam ne ak jafe-jafe yi nga xam ne moom lañu amoon ci élection présidentielle yi ñu changé ko su fekkente ne bii nag nangu nañoo jël fichier électoral bu bees ñu defaraat fichier bu bees su fekkente ne bi nangu nañu li nga xamante ne bii moom mooy processus électoral bi lépp ñu réviser ko de A à Z bu boobaa mën nañu wax waxu toog dialogue waaye nag dialogue ci condition yoo xamante ne bi même terme yàlla li nga xam ne moo amoon ci présidentielles yi la su fekkee condition yooyu la ñu reproduiraat ci élection locale yi day ñuy defaat lu leen neex loolu moo tax maa ngi woo opposition bi nañu prudent nañu xam bu baax a baax a baax lu ñuy wax ak lu ñuy def man dépendre ma ci Abdou Diouf dépendre ma ci Ablaye Wade basé wu ma ci Abdou Diouf basé wu ma ci Ablaye Wade Abdou Diouf amul sax kër Sénégal ba ñuy basé ci moom Ablaye Wade man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ko porté président de la république kon liggéeyal naa ko am naa sañ-sañu tamit critiqué ko te dama wax ne position neutre bi complicité la ci je suis contre mu nekk position bu neutre loolu nag leer na Sénégal gépp boo nekkee ci réew nag def élection élection yi jàll yow kenn félicité wu la kenn tàcc la kenn plébiscité wu la yow yaa organisé sa élection yaa ko gañeel sa bopp yaa génne say soldaar yaa jàpp say opposant yaa def lépp wax ah, mais ba tey nit ñaa ngi toog la seetaan rek bu ngeen xoolee Sénégal seen ngañaay li kenn waxu leen dara dañ leen a xool noonu rek dañ leen a xool noonu rek amul jaf ka amul guu parce que loo xamante ne bi nit ñëpp xam nañ ngañaay la nam demee moo waral lii tey moo waral amul xorom amul dara kenn tàcc wu la kenn du la def dañ laa bàyyi rek dangaa jaay doole ay ca doxalal ci jaay doole gi loolu rekk la mais li ma bëgg a wax daal mooy man oppo opposant la dialogue wu ma woote wu ma dialogue mënuloo jël ay Youssou Ndour mu taxaw fii toroxal nit ñi menacé ku fi yënguñu duma la jël ay siiseloo mu taxaw fii di dóor yor ay gourdin siiseloo dem na ba yéeg ci otoom di saaga naan ku fi tudd diw saagaal ndayam waa jëf ji bon ju nekk ñu def ko fii ci ci durant la campagne électorale ba campagne bi jeex nag bañ déclaré la gañaa nga jël say saar de combat wasaare ci dëkk bi ba mu neex la doog nag ne aci ñoo leen nag ñu dialogue nag ñoo leen nag ñu dialogue nag dialogue bi c'était avant dialogue bi avant la woon avant lii lépp di xew booba la dialogue safoon mais fi toll nii dialogue safewut te li ma wax man solennellement laa koy wax Idrissa Seck de bu jógee di dem di dialogue ji na xam ne man ba man man ñàkk na ma man bis ni ki tey bu jógee dem di dialogue ji bis boobu la ma ñàkk man pare naa ci moom ndax man dialogue wu ma mënuloo jël fichier électoral bi def ci lu la neex forcer nit ñi ci parrainage dialogue woo ak kenn organiser say élection ni mu la neexee dialogue ak kenn génne say résultat nu mu la neexee dialogue ak kenn génn char de combat ak armée bi jàpp nit ñi tëj dialogue woo ak kenn bañ déclaré le vainqueur na nga door a taxaw ne waa ci ñëw leen ñu dialogue ginnaaw bi nga defee li nga li nga bëgg a def ba pare loolu mënut a nekk mbokk yi man de duma ci d'accord man de d'accorduma ci tey d'accorduma ci ëllëg dialogue wu ma tey dialogue wu ma suba nañ dem élection locale dem élection législative lu ñu yàlla jox ñu xam ne loolu la nañ dem élection locale dem élection législative lu ñu yàlla jox ñu xam ne loolu la ma sœur Gana ça Dada Ndour ñu ngi lay bëggee New Africa Marie Sanu ñu ngi leen di ziar bu baax yi bëgg naa la de maa ngi lay bëggee bu baax ma ne man Assane silaade de ak képp ko ànd ak man dialoguewu ma tey dialoguewu ma suba waxtaaniwu ma tey waxtaaniwu ma suba mënuloo jël say nit ñu terroriser nit ñi di saaga nit ñi ñenn ñi ñu dóor leen ñenn ñi ñu menacer leen ñenn ñu tëj leen ci kaso bi ñenn ñi ñu toroxal leen ci réew mi nga def sa fichier nu mu la neexee carte d'identité jàmbur yi joxe woo ko carte d'identité yi Sénégal yi ci diaspora bi joxewoo ko joxe senegal yi bari seen i carte fii kenn mënut a voter bi nga doxale ko nu mu la neexee ba tey nga xam ne réew mi mi ngi jëm ci guuta nga taxaw naan damay dialogue fii kenn wul yow mi gagné gouverneel opposition bi opposé maa leen wax ne la réew mi xaalis jeex na fi ci guuta lañ jëm 6 6 mois yi di ñëw di ngeen fi gis ndóol gu méttee métti six mois yi di ñëw di ngeen gis ndóol gu méttee métti ci réewu senegal loolu nag la ñuy jéem a maskaw moo tax ñuy woote naan ñëw leen dialogué bu fi kenn dem di jaloge bàyyi leen leen ñu doxal seen réew ñoo gagné 58 pour cent alhamdulilah yi nañ doxal seen réew nañ dem gérer seen réew nañ continuer seen ay problème sénégalais yiy jàpp à 58 pour cent kan yi moom lañ war a renouveler seen confiance renouveler nañ ko seen confiance waaye waaye luñ ci gisit nañ ko dund te xam na loolu la demee waaw mais man dialoguma dialogluwuma waxtaanewuma respecté naa nag décision de justice décision conseil constitutionnel respecté naa ko bien que d'accorduma ci waaye respecté naa ko parce que je suis un démocrate je suis républicain décision bi conseil constitutionnel joxe respecté naa ko waaye d'accorduma ci am naa sañ-sañ bi d'accorduma ci de waaye nag dinaa ko respecté ndax yoon la bu loolu weesoo nag sama rôle opposant dama koy doxal ba mu mat sëkk lu ma gis ci sama dëkk biir di Diourbel jara dénoncé dinaa ko lu ñu fi wax lu jar lu dul dëgg lu jara daaj yi dinaa ko daaj yi sànni fële waaw man intimidé wu ma xala xalaatuma ku may napp xalaatuma ku may ci ak yooyu sama bopp nekkul ci loolu ñu bari woo nañ ma asan ñu naa ma man damaa def dara li am ba am solo daal mooy Sénégal 58 pour cent nee nañ ànd nañoo ñoom 42 pour cent ànduñoo ak ñoom kon deux Sénégalais yoo jël kenn ki àndul ak ñoom doxal nañ seen doxal nag organiser nañ seen élection ni mu leen neexee ba jël seen victoire nañ leen leen seetaan ak seen victoire nañ leen leen seetaan waaw nañ leen leen seetaan lebi nañ xaalis bu bari 14000 milliards lu ci bari dëkk bi nii naa aca nañ doxal waaw waaye nag. ay kaa leen ñu dialogue moom dooma rendi ba noppi di ma woonaama kaa ñu dialogue du ko def man de duma ko def dooma rendi ba pare di ma woonaama kaa ñu dialogue te képp ku ko def ma bala man képp ku ko def tekkeetoo dara ci man loolu laa bëggoon wax mu leer nañ ne discours boobu discours la boo xam ne kum doonoon it loolu ngay wax ginnaaw bi ñu la déclaré gagné ba pare mu la neexee nga woo dictour naa waaye damay woo président yi ancien durant sept ans yaa ngi fi benn président durant sept ans mi ngi fi woowut benn président lu ko neex la doxale waaw ba léegi naan damay woo opposition bi dugal ci Youssou Ndour nag muy jéem a nax Sonko maa ngi wax Ousmane Sonko naan ko waa kër Youssou Ndour yooyu di ko jéem a nax naan ko quoi qu'on dise la le phénomène quoi qu'on dise Sonko mooy révélation bi yooyu yëpp c'est pour neexal ko la mais ci kàmb lañ koy gasal na leen moytu Youssou Ndour bu amoon lu muy wax du taxaw menacer sénégalais yëpp taxawaat fii naan baal leen ma loolu du waxu nit ku dëggu kon maa ngi wax waa Kër Sonko ñu leen fi woo di leen nax di leen dugal ci kàmb goo xam ne après di ngeen am problème pour pour génnaat ci loolu maa leen ko wax. waaw sa adversaire bi nga xam ne moo la rajee fonction publique dàq la génn la nga dem xeex ba am pour cent mu lay woowaat naa la ñëwal ñu waxtaan ngay ñàkk fayda naan bés boo ca demee bu soobee yàlla da nga ñàkk li nga amoon. waa Kër Sonko maa ngi leen ko wax léegi mu leer ku ci dem ci dialogue bi ci yéen ñooñu. 15 pour cent yi ngeen amoon de maa la a waatal ne la bu ñu demee élection du ngeen am 5 pour cent sénégalais yi nañ leen bàyyi ndax ñii sénégalais yi dañ leen a mere de sénégalais yi dañ leen a mere bu ngeen gisee waxuñu leen dara félicité wuñu leen tàcc wuñu leen ñëpp noppi jàpp seen njàmbur dañ leen a mere kon bu leen wuti ay ay ay kii ak yooyu waaw voilà jeex na amul lu lu ñu leen di woo ci lenn ci lenn lu ngeen di dem di uti jërul dem ci dara doxal leen seen rôle opposant bàyyi leen leen ñoom ñu gouverner lépp loo leen gis lu jar leeral sénégalais ñu leeral ko élection locale yaa ngi ñëw bu ñu demee élection locale dinañ xam ku ci nekk sa gox li nga fa mane ku ci nekk la nga liggéey sa gox dinañ ko xam mais maa ngi ñaan waa Pastef bu ñu leen dugal ci kàmb naan leen vous êtes la révélation de l'année naan leen yéen yéen avenir gis naa Bibo Bourgi gis naa Bibo Bourgi di jéem a di jéem a wax naan ay euh, Idrissa Seck c'est le passé Sonko c'est le futur yooyu yëpp ay ndëgg sërëx la moytu leen ko moytu leen ko de Bibo Bourgi tubaab boobu laa wax yéen waa Pastef moytu leen ko bul leen gëmloo mukk naan leen ay sa Seck moom mooy le passé Ousmane Sonko mooy la futur ba ngeen jàpp ne Bibo Bourgi seen xarit la du seen xarit de Bibo Bourgi du seen xarit de maa ngi leen koy xamal nag waaw li ma xam ba xam nag mooy moom muy Sonko muy Idrissa Seck d'accord ma man ci ñuy dem di dialogue kenn Abdou Mbaye moom wax na boppam bu yàgg. leer na nañ Bibo Bourgi moomu nag ab tubaab la boo xam ne dañ ko fay rien que pour muy def ay ingérence di wax lu dul dëgg Bibo Bourgi tekkiwul dara lu muy waxee Sénégal fii dara dëkkut ci réew mi waaw ab tubaab nag bu ñu la indee ci réew mi yemoo fa nga war a yem ñu lay fay pour ngay jéem a dénigrer ay nit loolu ngay wax duñ ko faale sa Seck 59 ans la am 59 ans la am xam ngeen loi bi lu mu wax 70 an kon Idrissa Seck dese na ko ñaari mandat Idriss Seck de na ko ñaari mandat yu mu présenté wu yu mu war a présenté wu il a 59 ans 2024 64 ans lay am kon am na sañ-sañu présenté wu 2024 may ñaan yàlla mu am ci ndam am na sañ-sañu présenté wu 2029 kon Idriss Seck am na avenir ci kanamam am na avenir devant lui Ablaye Wade bi muy jël réew mi 72 ans la ko jëlee Ablaye Wade bi muy jël Sénégal 72 ans la ko jëlee. kon Idrissa Seck dese na ko ñaari mandat kon jarul ngeen déglu ay Bibo Bourgi ay tubaab yoo xam ne dañu c'est des mercenaires dañ leen a fay ils au service de la France pour ñuy dénigrer ay nit suñu liggéey suñu réew suñu réew la suñu réew suñu réew la li xew ci suñu réew ñoo koy décider mais du Bibo Bibo Bourgi moo koy décider kenn ku ne nag am nga gëm-gëm sa modèle modèle bi ñee gëm mooy modèlu France jël pétrole beeg ressources naturelles yeeg supermarché yeeg li am importance ci réew mi yëpp ñu dégg ko français yi am nañ sañ-sañ bi mais ñun am nañ sañ-sañu dagg loolu léegi nag sénégalais ñooy choisir ndax dañoo bëgg continuité ak France wala dañoo bëgg a dagg buumi njaam yi man nag j'opte pour dagg buumi jaam yi loolu moo tax mooy opposé wu j'opte pour dagg buumi jaam yi moo tax ma taxaw ne dialogué wu ma j'opte pour dagg buumi jaam yi moo tax ma ànd ak coalition Idy 2019 ndax jàpp naa ne buñ jëlee réew mi buumi njaam yi dana dagg ndax ba fii ni wax ak yéen dañoo tënk ne ay jaam lan ñu bañ ko ñu nangu ko mu neex ñu ñu naqari ay jaam lan jaami France lan dañ ñoo téye dañ ñoo takk dañ ñoo téye amul fenn fu ñu mën a bouger loolu nag il faut ñu dem a dem ba yee Sénégalais yi ba Sénégalais yi yeewu ba nga xam ne dinañu mën a dagg buumi njaam yooyu ngir mën a jël seen réew en main buumi njaam yooyu nag ñun ñoo war a xeex pour dagg ko ñu ci bari nag dañoo xamut am na góor goo xam ne mas na ma nettali gis ngeen paanu ndox gis ngeen paanu ndox paanu ndox bii tey gis ngeen ndox bii tey lii paanu ndox la genre paanu ndox su ci ab jiit nekkee di daw si biir paan bi tëmb si biir paanu ndox bi jiit nga di ko seppi ak sa loxo jiit bi dalay fit pourtant yow yaa ngi jéem a sauver jiit bi mais jiit bi il n'a pas compris que koy sauver loolu moo ñu dal ñun sauver gi ñuy jéem a sauver sénégalais yi comprendre gu ñu ne seen intérêt la mais bu ñu demee ba comprendre ne seen intérêt la dinañ xam ne dagg buumi jaam yi jot na loolu na ngeen ko xam benn góor moo ma woo Assane mu ne ko ah, mu ne ma kaay ma ñëw mu ne ma muñ leen te góor góorluwaat dem defaru jiwaat ma ne ko ah, mu ne ma paanu ndox boo ko tegee jiit tëmb ci biir jiit xam ngeen jiit day fettaate mais jiit bi tëmb ci paan bi di bëgg a lab yow soo dugalee sa loxo pour rocc ko ci paan bi pour sowe ko jiin bi dalay lay fett pourtant jiin bi jiit bi bu xamoon ne yow da koo bëgg a sowee ci ndox mi mu nekk di lab du la fett loolu moo ñu dal senegal dañoo xamul ne dañ leen di waaj a sauver dañoo xamul ne dañ leen a bëgg a dimbale dañ leen a bëgg a daggal buumi njaam yi bu bu ñu demee ba xam ko rek dinañu bàyyi yoon bi nga xam ne moom lañu jël jël yoon bi nga xam ne mooy sunu yoon sunu yoonu valeur suñu yoonu maam yi sunu yoonu ñëpp sa sekk nag ngàcce ngalaama sëriñ Mountakha lim ko wax leer na nañ am nga ndam lu rëy Idrissa Seck sëriñ Mountakha lim la wax leer na nañ nee na la am nga ndam lu rëy rëy rëy lu tax ma wax la ko mënoon ngaa convertir réew mi ñu nekk di rayante en génocide defoo ko nga nekk homme d'état nekk kilifa xam ne lii dañ laa jaay doole nga muñ loo ko yàlla looloo tax sëñ Muntaxa ne la sa Seck am nga ndam lu rëy te am nga ndam lu rëy ndax bu la neexoon nga génn topp sa xol ne fekk leen ma place de l'obélisque ni ñu xeex fa rayante ay dee yu bari am ci réew mi te bu boobaa dañ naan kon sa Seck moo rey senegal yi kon ngàcce ngalaama Idrissa ni ko sëriñ Muntaxa waxe am nga ndam lu rëy tu es un vrai homme d'état kilifa nga nit nga koo xam ne nanga ko waxee woon noonu nga ko defee bugguloo jël mukk présidence de la république en marchant sur de cadavres loolu ñoo ngi la ci félicité di la ci encouragé di la ci sant bu baax waaw di sant yàlla nag ndax li ñu suñ mën taxaa wax ñun day nañu de am ngeen ndam lu rëy kooku do kooku suñ tubaa la kooku xalif général la loolu du waxi caaxaan loolu du n'importe kii moo ko am kon Idrissa am nga ndam yow am nga victoire yow sëñ tubaa moo la jox victoire sëñ tubaa moo ne la am nga victoire bu rëy ndax victoire jàmm la jàmm mooy li gën a rëy ci àddina bi jàmm mooy li gën a rëy ci àddina bi kon comme comme indi nga jàmm ci Sénégal yow Idrissa am nga ndam am nga ndam kon yàlla na la yàlla guddal sa fan macha allah yàlla nañu yàlla dimbalee ba lii nga xam ne moom moo nekk ci suñu kanam ñu mën ñu mën ko mottali ba local yi ak ak législative yi yàlla defal ñu feex ba li nga xam ne moom lañ bëgg muy dagg buumi njaam yi ñu mën ko ñu mën ko mottali dagg buumi njaam yi moo fi ne dagg buumi njaam yi tant que dagguñu ko ay jaam la ñuy doon waaw jërë ngeen jëf one love ñoo leen di jox rendez-vous ba fan yi incha allah jërë ngeen jëf